ngir gëna mëna jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bëss li nga xamni mo di cloche bi ngir mëna jot. Ah, tour bi tour bi man Adja Awa Diallo. nga bokku ci quartier bi buñ la ñu doon wax nga def témoignage ci ki nga xamni mo di Abdou Abdou Diop nan ngay wax. ah témoignage Abdou Diop dafa baax bima ñëwé ñëwee fi la ko fekk man ba légui baax rek la ko xamé dafa am teranga. dafay nuyoo dëkkandoo yëpp jàmm rek la sëkk mooy seen diggante ñun ñëpp benn lañ caaro ñu paapam mooy nekkoon suñu papa caaro fii wax dëgg yàlla Abdou Diop baax rek laa ko xamee ak yiw ak taranga dafa ñoo bëgg dafa ñoo yéene jàmm daf lay nuyoo nuyoo ba nga rus sax billaay wallaay taala jàmm rek lañ yéene si àddina bi bu baax la moom wax dëgg yàlla xam naa yaayam xam naa paapam moo dégg yàlla ñu baax lañ moom wax dëgg yàlla ñoom ñëpp fii. lan ci poste bi nga xam ne jox nañ ko ko muy chef. na ko jib yàlla na ko jib musa seytaane yàlla bu ci cat jiitu ci barki Muhammad sallallahu taala yàlla na ko attan liñ ko yenn yàlla na ko attan mu yàgg lool comme papam waaw comme papam nu mu meloon mu raw paapam barki Muhammad sallallahu taala wa sallam Abdou Diop ku baax la moom baax rek laa ko mën a seede moom wax dëgg yàlla ku baax la romb nuy la am ñëpp jàmm quartier bi yëpp la amal jàmm salaam daf lay nuyu nuy ba nga rus billaahi wallaahi tarangaa rek moo nekk suñu diggante bi ñu ñëwee caar ba lépp fii suñu kër yi benn lañu fàttali ma euh, Fatou Sow. tey jii ban témoignage nga mën a def si ki nga xam ne moo di Abdou Diouf. waaw kooku de boo ngeen ma ci woowee témoignage moom danaa xam la ma cay wax bu baax a baax ndax ba ma amee fukki at ak juróom-benn laa dugg ci ay loxoom mu daan ànd ak sama borom kër nag ngénte samay doom tudd leen maye leen. tey am na ci ñoo xam ne buñ leen di maye tey moom personnellement moo leen di maye ndax moom lañ leen bàyyele mu and ak sama borom kër nak and bu rafet li sank tay ci jotay bi touté téré sama rangoñ touru ndax dama né yelleen tokon kon moom mu féké ko ndax daf ko ci daan ñaax di wax ni jëlal quartier bi ndax sa papa mi ñu yar tax na xam nañu quartier bi ba yow mën nga ko jor tay nak yalla def na dëddu na fekkewul dara waye Abdou nak li yalla xam ak li doomu adamay xam ci mom ci lu bax buñ da fay doy ku bax la ku am wëllëre la waane ku yaatu la Abdou kharul ba soxla nit ñi di doga daw ci nit ñi waye Abdou bi bi mu soxla nit ñi bi mu amé nit ñi soxla wu len kon nak dañ koy ñaanal yan bi yal nako yalla oyofal ta diko wax ne Abdou ah Lamine Faye dem nak waye njabootam a ngi ci sawet inshallah rabbi lepp lo yëkkati bu soba yalla da ngeen ko and yëkkati ndo di ngeen ko and tegandoko ndax ak njabootam déjà moom rek la ñu xam quartier bi nag am ci moom yaakaar lool ne newoon naa Abdou pour ñu fal ko jarul woon xëccoo dañoo waroon a ñëw rek jël carte gi ni ko am mi ngi nii kon sant yàlla ba ñuy koy xëccoot gis nañ ni mérité na ko macha allah alhamdulilah ñuy ñaan yàlla suñu borom oyofal yanam daal yàgg baayam ba mu ko yoree yàgg gam ca yàggoon moom yal na ko weesu at yi ci baayam defoon yal na def at yoo xam ne moo koy sut fouf nak machallah allah te li ñaax rek moy na quartier bi yépp jóg and ak mom jappalé ko ci liggéey bi ndax l'union fait la force. ya yalla daf ko wax sax ci alxuraan simu bi hablillahi jami'a wala tafaraqu jappando len yeen ñepp ci boomu yalla gi da baña takaliko kon suñu ndo di ndo rek yeen bi dana oyof ci mom inshallah allah jërë ngeen jëf tam waa info di len jaajeufal bu baaxa baax. d'abord euh, euh, critère yi tax ñuy nan euh, net war na nek délégué de quartier yëpp da ko remplir. avant tout moom papam nekkoon na fii ni chef de quartier yaakaar naa papam ba muy nekk chef de quartier fii ba nii nii léegi jamono génn na àdduna lu yàgg mais ba tey dañ koy waxtaanee te moom aussi nekk na koo xamante ne nit ku solidaire la. nit ku bëri jàmm la xale bu ndaw ndaw sax bu la rombee balaa mu laa dépassé foog balaa mu laa romb kon boog foog mu nuyu la jàmm sant ak yow da ngay jàpp ni sax kii da euh, au finish da ngay jàpp ni kii amul jot wala amul leneen lu mu def fekk disponibilité bi la ak euh, ak engagement bi mu am ci quartier bi avant moo nekk chef de quartier sax engagé woon ci quartier di jël ay di jël di di di di def lu nekk pour quartier bi daal di di sacrifié wu pour quartier bi donc moom yelloo na liñ ko jox te ñoo ngi koy ñaanal yàlla aussi lii ñu ko jox yàlla na yéen bi oyof lool ci kawam mbëbët mu ci am yëpp yàlla na ko yàlla moo tam lan wax jeunesse bi pour ñu mën a dugg ñëw ci commission bi mais ànd nag ki nga xam ne moo di papa Abdou daal di liggéeyal quartier. d' accord euh, foofu tamit nekk na point bu nga xam te point bu essentiel la parce que soo xoolee sànq maa waroon jël euh, cadre jeunesse bi sax mais heure bi may ñu ko woon bon jeunesse bi ñoo ngi leen di woo ci liggéey quartier bi parce que bi kese mag ñi kese mënuñu koo doxal ñun jeunesse bi quartier bi daf ñoo soxla. à travers euh, suñuy suñuy programme euh, suñu organisation culturelle yi nga xamante ne quartier bi da koy organiser te jeunesse bi tamit war nañ jug xam ni quartier bi dañ ñoo soxla. par exemple jeunesse bi war nañ organiser ay ay cours de renforcement pour jàppale suñu ndaw ñi wala bokk ñu organiser ay ay groupement yoo xamante ne dañuy recenser bépp xale boo nga xamante ne judd na ci koñ bi fii amul ay këyit wala bépp xale boo xamante ne mu ngi ci koñ bi fii bëgg na jàng li nga xamante ne mooy école wala métier amuñu amuñu mécanisme yu yu koy remplir donc loolu yëpp soxla nañ si jeunesse bi en plus de ça aussi jeunesse bi dañoo war a ñëw jël euh, euh, jël quartier bi def ko seen quartier surtout si côté sécurité bi sécurité quartier bu sécurité baax bi soxla. ma ma ah Baba Wan euh, man euh, magla Aziz bu ci man bon Abdou Aziz sama parce qu'on a vécu. Euh, euh, pendant longtemps man dafa nekkoon ak moom Mbour faire la une partie de son cycle primaire mais dafa nekk bés boo xam ni kii dama ci am doublement satisfaction d'abord gis naa ne Abdoul Aziz nekk na quelqu'un de très fidèle en amitié ndax beaucoup les tey jotaay bi man gis na fi ñoo xamné ni euh ñoo mo fété mag te ma gën leen gis lu lu yag nak nous avons aussi aussi génération Aziz je les ai connus tout petits, nous màggandoo yarandoo gis aussi des gens de ma génération Nous def cycle primaire mais satisfaction de c'est quelqu'un qui a Euh, dafa am numuy doxale ci relations humaines ba taxna xaritu ba légui ñi ngi and représenter en même temps ñi nga xam ne ñii ay nijaay lañu soo xam ne suñuy rakku yaay lañu euh, ma ñoo ñu woo ma démb ne ma du ñu mën a ñëw kenn ki bëggoon a ñëw au dernier moment il m'a appelé vers 23 heures ne ma nag malheureusement du mën a ñëw yaram bi moo sutante ma ne ko waa bu ma demee naa leen représenté mais dama la bëgg wax rek ne Abdoul Aziz bu ñu nee nit ndax baax na da koy laaj d'abord mbokk yi. boo xolé man sama déplacement demeetul noonu am na ay sëram yu jógee Mauritanie amna ay mbokam bo xolé entourage bi te xam nga il est il a même été adulé par les par les jeunes la jeunesse qui est l'espoir de demain donc dañ koy ñaanal rek plein succès dans ses nouvelles fonctions te amna ci yaakaar te manit même à distance je ne cesserai jamais de lui prodiguer des conseils parce que ma ko expérience Euh, boo xasee jiite da ngay tëddee njaxaanaay ba pare am écoute am carnet d'adresse am disponibilité te xam naa am na lu muy yor lor ci góor gi muy papaam bi fi nekkoon délégué de quartier ñu ngi koy ñaanal wér yàlla ñaanal ko mu am ndam ci ci fonction bi teyit may ñaan aussi askanu quartier Darou Laye ñu jàppale ko incha allah kon dinañ ci am ndam lu rëy merci. lan nga ci di man maay magam daanaka ñoo bokk ndey ak baay ndax ñoo bokk loolu benn soo ne jiw ñoo bokk baay bokk ndey loolu fas moom. te te yàlla na ci man euh, yaayam seen yaay moo ma yaay xaw ma sama yaay seen yaay moo ma yaay sama yaay da doon wax ne nee na. ndax na ko baal mu xool ma tey nee na ba xam nga te yaayam moo ma yar. ma ñëw nekk ñoom ñii nag ñuy sama maa leen wax ñun waaye dañ maa respecté. buñ ma respecté wul woon dama xam lu mu bon bon nag xam na yàlla. maa ngi sant yàlla. maa ngi yem ci sama yàlla yàlla suturaal na ma. maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. doole ma ma ko nag yàlla may na ma teraanga may na ma sutur waaye ñam-ñam dañ ma yëg bu ma yóbbul woon bu ñu ma yóbbulee rek ma toog sama kër toog jàpp sama yoon bi te du ma waaye nag dina nekk xis ndax maa ngi ma bokk ñoom seen nag mooy sama nag seen kii mooy seen gàcce wala seen kii mooy mooy Abdou bés bu mu commencé di def nii mu ne ma nee man de damaa bëgg a def chef de quartier ñaanal yàlla nag xaw ma dinaa ko gañe xaw ma du ko gañe waaye bu ma ko gañee reer yi yàlla yi. man ko incha allah. ko incha allah. ñuy def noonu di wax muy kaf muy def ba yàlla def mu gañe bi mu gañee mu ñëw na ne maa gañe. ñu daal di kontaan ñaan yàlla. ñu jékki-jékki ba keroog bi ko mee woowee di ko damay ñëw sampal la euh, drapeau bi le 29. incha allah mu ne dama coupé ak moom rek ma woor. ma ne ko bu soobee yàlla incha barke démb day dafa daggal fa bañ ba daggal ma bés xam nga famille dafa am ñoom ñun ñëpp ñoo bokk sama baay macha allah jaboot na te barkàlla li ma leen di ñoom ñëpp ma bëgg la góor ñeeg jigéen ñi amu ci kenn koo xam ne nekk nekk ma ci xolam muy góor muy jigéen ñëpp ma bëgg ma ne man yàlla moom may boobu chance léegi nag barkaat bi may ma waxtaan ak moom mu ne ma nee na man de ñiy takk baas yi war naa leen di fal ak man ko bàyyi ko dinaa def ak dinaa def mun ma waaw incha allah ne du metti man ko baax na yàlla yàlla yooyu yëpp. ñu teg ko ci ndox ak yàlla ma woo ki may toggal mooy togg xew yi bu ma ko wooyee man ko dama sama rakk dafa am dañ koy defal drapeau dama bëggoon nga ñëw toggal ma añ toggal ma mu ne ma ndugg na de man ko yàlla baax na. mu ne ma lan nga bëgg a togg añ man ko ceebu jën mu ne ma ceebu jën ne fukki jar man ko yàlla baax na. ñu fi muy baax loolu yëpp ñu daal di toog. ba yàlla def bu njaboot seen bàjjen bi bokk seen ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification